tey bés je pense que mooy cadre de concertation bi nga xamante ne d' pour le développement de Passy dirigé par le grand frère Alioune Alioune Badara Diouf nga xamante ne tey euh, cadre boobu dafa ëmb képp koo xam ne doomu Passy la nga yaakaar ne am na loo mën a def ci dëkk bi si ñoo ñëpp ñu tënku ci benn association boo xamante ne dafa ànd ak municipalité et je dis bien objectif bi du politique du leneen mais objectif bi yëpp mooy développement Passy mooy tax heureusement li koy wane mooy loolu je pense que ñi sooxe tey activité bi am ma koy cité tey muy ko mel ni suñu grand Mamadou bi tey xamante ne ko fi ànd ci ak docteur Ibrahima Diop mais lépp coiffé ko par le par le coordonnateur ñu ci def liggéey bu rafet te bi ki nga xamante ne jël nañ engagement and ak pour pour bokk ci li développé dëkk bi ñu ci ciy def bay seen waar lii benn action activité la boo xamante ne def nañ ko mais def nañ ay yeneen yoo xam ñun chaque lundi ak vendredi dañuy def animation causerie ci maternité bi les femmes enceintes am thème yi ñuy jox ñu koy traité ak ñoom. fa la ma wax ne dafa am consultation gratuite bu am euh, Passy ma ne ko ah alhamdulilah rabbil alamin loolu moom ma fi indi nii pour ma ñëw jàppale gars yi. initiative bi comme kontaan lañ ci def dañ ci kontaan parce que dañ nekk ci commune boo xam ne benn district lañ am mais population bi même ñi nekk ci yeneen commune yi même ñi xam ne Kaolack lañ te commune yi polarisé parce que fii la ñuy traité woo jour bi ñuy jox information bi ñun jour boobu lañ commencé sensibiliser ba tey nii moo tax nga xam ne nit ñi ñu ngi ñëw nit ñeen dañ naan naa dem marché ba ñëw naa def lii mais nit ñi ñu ngi place ba dañ ko soxla gisoo ki ma àndal nii nee na ma lépp laay faj ma ne ko lépp lañ fiy faj mu ne lépp moo ma dal ma ne ko lépp la ñuy faj. population lim ci mën a gañe bari na parce que benn bi njëkk sax mooy euh, consultation gratuite xam nga gratuité moom. di day am xaalis sax mais bu ñu gratuit da nga dem dabali wuti ko surtout nag ñu yaakaar fi dara mais li ñu yaakaar yàlla nañ ko gis barke sëñ Babacar yàlla. sant yàlla rek di leen gërëm di leen ñaanal yàlla rek parce que vraiment yéen a ngi dimbale askan wi ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax a baax si yéen wax dëgg alhamdulilah lii daal xéwal la goo xam ne ñëw na ci pass yi ñu ngi ñu ngi yàlla bu baax di sant di gërëm yaari bi yàlla daal moo am fay yéen na leen yàlla fay daal barke alquran barke sara man ngi kontaan nañ daal. sant yàlla rek instant tool yi mën naa ne ñëpp a feebar te ku nekk ak feebaram kon tey jii bu ay nit ñëwee sa biir dëkk jëla la faj ci gratuit ak maladie ba mënti am kon loolu mënuñ dara lu dul rafetlu ko. di sant yàlla rek parce que paj moom defe naa fi mu ne ñëpp ñoo feebar moo tax boo xoolee doomu aadama yi ak ni ngeen ko doxalee nii sax sant yàlla bu bari di leen gërëm ndax ku ne xam na ne fi mu ne nii paj mi moo gën a dox ndax kenn wérut. waaw ñii ñu ngi ci paju ñii ñu ngi tension ñii ñu ngi cataracte ñii ñu ngi estomac ñii ñu ngi métitu biir ñii sa yaram fépp doo xam sax fiy métti. di gë di gërëm rek di leen ñaanal ci digale gëm-gëm yi la sant di leen ñaanal yàlla kontaan nañ de bu baax a baax a baax parce que waaye parce que yëpp kontaan nañ ñëw nañ ñu ngi leen ñaanal ko yéen ngi dimbale askan wi bu baax a baax baax a baax. xam nga di ñaan aussi tamit ñu ñaanal li nga xamante ni ñoo ñoo ñoo créé lii nii yàlla jàppale leen xam nga ñu jëm ci kanam vraiment am na solo daal waaw amuñ seen fay ñëpp amuñ seen fay parce que feebar métti na doole amul xam nga ngeen ñëw jàppal ni ci gratuit jaamu ci yàlla moo ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm. gannaaw sant yàlla ci seen woyofaay dama xam ne dañu bëgg yaatal parce que tey bu fekkoon ne ci poste de santé bi amaana xëy na day xat fii ñu ko taxawal nekk bërëb bu yaatu di école 1. man dama jàpp ne da ngeen fekki ndaw ñi ngir jàppale leen te lii ngeen def ndaw ñi ñëpp ci kontaan parce que amaana bu fekkoon ne ci école eh, euh, ci euh, post bi dañuy yaakaar ne fay la mais gratuite bi dafa jàppale ñu bari vraiment. waaw jàppale man daal kontaante laa ci am. damay garab bi sax moo gën a kii di xam garab léegi nu mu seeree garab léegi dafa seer bu yëkkati may la ko nga waroon a jënd ay xaay bu bari macha allah daal kenn amul seen fay yàlla moo am fay yal na leen ñaanal yàlla yal na yàlla oyofal lépp daal. sant nañ leen ñaanal la leen jërë ngeen jëf. jërëjëf donc cadre concertation bi nag euh, comme niñ ko waxee ah c'est un boo xam ne euh, dafa regrouper tout toute la population de Passy je dirais voilà mooy euh, doomi dëkk bi ñi nga xam ne kenn ku nekk rek euh, am nañ yaakaar ne am na loo mën a ci dëkk bi voilà donc euh, ñoo regroupé autour d'une plateforme di organiser nag ay activités allant dans le sens de participer au développement local waaw si noonu ona a eu quand même beaucoup d'activités yoo xam ne jot nañ ko organiser ba nag yegsi si organiser benn campagne de caravane de consultation voilà caravane bi nag bon ni mu demee mooy euh, y a un membre bu bokk ci cadre bi en l'occurrence euh, Mamadou Biteye euh, qui évolue dans le secteur de la santé mu ngi à l'université odontologie donc en fait c'est par l'intermédiaire de Biteye boobu avec benn association bu tudd Sine Univers Santé voilà ñu am accord boo mun a organiser euh, journée de consultation gratuite à Passy donc une journée nag quand même qui a été facilité par la municipalité en l'occurrence le maire voilà qui a mobilisé vraiment beaucoup de moyens euh, ci hébergement bi ak maanaam accueil beeg yëpp pour ñu mën a organiser événement bi dans de très bonnes conditions loolu daal moo ñu fi dajale woon ci journée tey bi. wala association bi en fait euh, mën nañu wax ne ci xalaatu monsieur le maire la. Euh, au début biñ koy doog a ci municipalité bi donc mu nekk aussi ay xalaat yoo xam ne c'est croisé donc quand il m'a contacté pour wax ma idée bi donc automatiquement bon je si suis lancé dessus mais li ko wund rek mooy moom ci euh, politique am daf ne dafa bëgg képp ku dëkk Passy bokk ci population bi nga jàpp ne yow maire nga euh, jàpp ne maire nga nag mooy ubbi na bunt yi ba képp koo xam ne rek am nga xalaat bu rafet am nga aussi idée am nga aussi loo mën a apporter ci dëkk bi boo ko indee moom dina la ubbil bunt yi facilité la pour nga mun ko def donc loolu moo tax cadre bi nag ñi ci bokk ñëpp kenn ku nekk vraiment euh, c'est des gens qui évoluent dans plusieurs secteurs ñii dans le domaine de la santé ñii ci économie ñi ci comptabilité ñenn ñi ay technicien lañ ñii aussi ay acteurs de développement lañ ñenn ñi ngi passé nekk dans le secteur informel et tous ces gens ñu ngi ci biir cadre bi donc nag loolu nag vraiment moo permettre tey peut-être activité bii sax gis nga un membre du cadre moom ci moom lañ ko jaarale parce que sax am na chaise dentaire boo xam ne un membre du cadre moom moo ko fi donc loolu avantage la quoi pour euh, loo xam ne bénéfice dëkk bi lay doon voilà. moom rafet na rafet boo xam ne et population bi rafetlu nañ ko de telle sorte que euh, le cadre de concertation a vraiment euh, organisé une rencontre avec la mairie pour mu nekk loo xam ne ni dañ koy pérenniser. Donc, et dans ce sens, l'association SIN Univers Santé a accepter ce partenariat la Et ils ont déjà fait la convention. Et là, euh, quand même, ce sera signé juste après l'événement. Donc, boole ci seen programme. Parce que ren exceptionnellement, un membre des bu am relation ak le chef de la délégation, moo nous avons mais déwén quand même bu ñu signé accord de partenariat bu ba pare avec la mairie dafay nekk nag parce que day bokk ci seen programme léegi nag mu nekk loo xam ne chaque année population yi mën nañ ko di ko programmer ñuy jàpp date yi ñoom bu seen caravane bi commencé rek ñoom dinañ ñu avertir comme ça ñu choisir une date boo xam ne parce ci lañ foofu war a ñëw donc loolu daal dina nekk loo xam ne lu rafet rafetlu lay doon